dem nañu dem ci info 15 ci info 15 di nga jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci info 15 ñi nga am mbégte ak kontaan délu dellu si waat ak yéen ci seen émission li ci làmb ji comme ni ñu koy defee rek euh, talaata bu jot ma andi ci ak ki nga xamante ni mooy Lat Diop tey ñu déplacé wu ñëw ba fi nga xamante ni mooy ci diwaanu Thierno Ndiaye euh, seet si benn champion laataa nag ñuy ñëw ci champion bi kan la ak di ko bàyyi muy présenté wu dañuy bàyyi ak Lat euh, mu daal di nuyu ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp su ko defee ñu soog a ànd ak ki nga xamante ni moom la ñu war a ànd ak tey ci seen émission li ci làmb ji voilà Cheikh comme ni nga ko waxee salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum mbokk info 15 ñu ngi leen nuyu di leen siyaar fi ñu leen daan nuyoo rek seen émission bi ci làmb ji tey ñu déplacé wu ñëw fii Farba comme bu naan Jolof fekk benn champion bu ñu naan guy Gouye Gui di xale nag ci yoonu làmb di bay waa ngi leen lay fay di ko damiren xam la yàlla yàlla xaw waaw di fay di fay grand di nuyu ñëpp waaw ku lu ku nekk rek ñu lay ziar la nuyu tamit ak koñ bi waaw baaxuñ kenn. voilà Thierre ginnaaw bi nga nuyee ba noppi ku wax yëmbal wala bokk fii nga xamante ni mooy ci diwaanu Farba xam ni koñ la boo xamante ni dañ a yàgg miin ci li nga xamante ni mooy wàllu làmb mais depuis li nga xamante ni euh, jamono ji si ginnaaw am benn mbas boo xamante ni dafa dugg si si réew bi daal di bloqué tëj lépp loo xamante ni làmb la yéen fii ci diwaanu Farba naka ngeen gisee mbir bu ni mel ak naka ngeen ko dundee. waaw fii moom lañu sant Yàlla ndax lool mbass la bo xamanteni ci aduna àdduna yëpp la waaj waaw ha di ñaan yalla rek yalla jël ko fi waaw lool la ñuy ñaan quoi mais fi méttoon na trop tamit waaw gaay yi moom ni nga doon dundé respecté li gaay wax sart yeeg yëpp waaw mais yalla baana yalla ci yalla tam rek ceer ñu gis ceer mu ñu rar ci lamb ji ceer ñu gëj ko gis ci lamb ji lool depuis sa combat ak sa waa ba léegi gisuñu la lu waral lool ceer di xalé def quatre combat xanaa quatre sorties nga def ci lamb ji hmm. bëré ñaari victoire ñaari defet Thier nga ñak sa digënté ak Saba bo bëlé gis ñu lu waral loolu tier fan la nekk waaw tier mi ngi ci ruuxam rek ne ci daara ji di entraîner waaw daara ji dañ ko sass loolu entraîner waaw liggéey waaj entraîner te dina jeexna xam rek ak fuñu juggé da daam fuñu wara jëm dafa rom tamit bees saaku luñ indi waaw mo waroon ñu dexu ñu melul leneen parce que loolu moo waral nga tëgg li nga teg la ñaari defet moo tax nga raar wala lan. waa dañuy mooy loolu gaynde mer fanaanoo daal moo tax ñu toog suñu tànk tamit xool li ñu manqué woon lépp waaw ak ñi demoon ñëpp ñu indiwaat ñëpp daal. Hmm. teer xale dëkk si gox boo xam ne goxu làmb la du lay xam ne fi nga dëkk dëkk nga fekk ay mbër teer nga nekk ci gox bii nii jógee fi dem ba écrit bàcc seeraas lu waral sa nekk ci écurie Bathie Seras da nga romb écurie yi ne fii yëpp. waaw nga dem ba écurie Bathie Seras. fii am nay mbër di leen nuyuwaale ñoom ñëpp champion yi fi nekk yëpp ku lim juum waaw écurie Bathie Seras daf ne écurie boo xamante ñun dañu ko yàgg bëgg bañ doon a booy waaw suñu grand frère boo xamante ni fa nekk waaw moo ñu fa jël moo ñu jël yóbbu ñu foofu mais ñun nekkoon euh, écurie bii tamit. waaw lu gën si ñun ndax ñun fi lañ dëkkee waaw ñu dëkk fi di entraîné si équipe bi ñu dëggal di ñu gis moo gënoon waaw mais liñ jëlee fee yóbbuñu fa gannaaw buñ déggal la waaw boo xamante ni bu ne jaar fii rek fan la ñuy jaar moo taxoon ñu dem foofu muy grand Alioune Dieng di ko nuyuwaale tamit. Hmm. Thier dëkk ci kooxu Farba Thier fi la mbabatee wala dafa wàlleyaan ñëw fekk ci koñ bi ànd ak waa koñ bi di bëre wala Thier dafa dëkk ci koñ bi juddoo fi fan nga mbabatee laa bëgg nga ñëw ma ci. waaw moom fi la commencé lépp fii nii waaw la juddoo waaw ñëw dëkk ci fii fii la commencé bëre fii la defee mbabatam lépp waaw fii la débuté tamit arène te incha allah rabi fii la yeggale ci kàttanu yàlla. voilà laataa ñuy wëy rek dañuy fàttali ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp ñu ngi ak yéen ci seen émission li ci làmb bi tey ñu ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy Thier Gouy Gui euh, Thier ñu bëggoon rek nga delliseel ñu tuuti rek ci sa parcours ci li nga xamante ni mooy làmb ji euh, nga tënkal ñu ci tuuti rek maanaam euh, avant ngay dugg ci lutte avec frappe bi ndax jot nga jaar si lutte simple bi wala itam ndax yaa ngi ci ba léegi waaw lutte simple moom bàyyiwuñ ko ñu ngi si ba léegi waaw avant ñoo dugg si ligue Fara bëri nañ ligue simple bëri nañ ay combat yu bëri bëri nañ tamit ay tournoi ku su mel ni Thiel Mokho dem nañ fa ñoo ko jël Morola tamit biñ demee tamit la même chose. Thiel day dugg ci àll bi daal. waaw yàlla dogal na loolu tamit ci mbapat bi tamit bëri nañ ci ba bàyyi daal suñ cee dégg mu ñor. waaw. voilà sànq ci sa biir wax dégg nañ la nga ni yaa ngi quitté fii dem ba écurie Bathie Seras mais écurie bi seen écurie bi lan mooy problème bi parce que écurie bi moom dafa mel ni doxul. ba tey ñun xamuñu écurie Bathie Seras kan mooy tëdd fii xamuñu bëri bëri sax. est-ce que c'est rare sax ñu déggati mbër bu bokk ci boobu di def ay jaloore loolu moom euh, néew na lu ñu koy faral di dégg lan mooy nekk problème bi réellement. ah écurie Bathie Seras am nay champion Boy mi ngi fa. Ah, boo nee Boy ñu ngi koy dégg rek te moom. daanaka lamb la lañ koy dégg. tey boo xoolee ñu ni écurie Bathie Seras booy buy bëree sax ñu ni bëri dóor écurie Bathie Seras bëree dafa raar ci làmb waaw booy Dantec mi ngi fa ak ak ñoom Sam Ndiaye xam nga ak eh, ay ñoom Demba si. booy booy tukki nañ de. waaw Sam moo tukki te Sam gëm naa daa entraîné ji rek. Ah. waaw daa yokki doole mais gars yi ngi fa de ay mbégu mboora yeneen gars dañuy ñëw ay xale lañ. waaw ay xale rek a fa nekk di leen nuyuwaale tamit ñoom ñëpp waa écurie bi. mais mais jamono ji euh, saison bi peut-être bii nii moom am na tolof tolof yu ci nekk mais saison bi ñu dëgmal lan ngeen di waajal. waaw saison bi ñu dëgmal ñun ñu ngi waajal lu garaaw loo xamante ni moom bu ñëwee dinaa ragal ne làmb ji day changé waaw ci bépp côté ndax fu mu toll nii rek ñu woon avance waroon a bëri ak Noireau yaag Nuwaaro. waaw bu écurie Doudou Bakar Sarr. Ah. waaw ñun suñu làmbu parce que demoon na ba des benn dimanche bii di ñëw la ñu waroon a bëre. mais combat bi taxawoon na yaag Nuwaaro. non taxawoon na ba ñu waroon a bëre si dimanche boobu kay. waaw yàlla dafa dogal nag li fi am tey waaw. voilà waaw moo fànq lépp daal. mais bi mas bi ñëwee euh, combat boobu xaw am ay jafe-jafe ndax promoteur bi daf ko maintenir ba léegi walla euh, ndax daf koy mujj bàyyi. non dañ koy bëre. si ban combat la woon. si combat jigéen moom jaxate woon. arène nationale bi. kan moo tëgg làmb bi. Euh, sëñ Mori Niang moo tëggoon. sëñ hmm. dañ koy bërëbal léegi incha ah kon mën na ni Thier mu ngi ñëw si cinquième combat am. waaw mu ngi ñëw si cinquième combat am. Thier ñu gis ñu ñu seetaan say combat boo ñëwee danga nga dul jox mbër mi Thier wala nu demee dama xool sa combat ak Saba ak sa combat yaak booy booy kii bi Bisaawo. Mhm. sa bëre yi nga fa bëree joxoo cër ki ngay bëreel ba tax sa combat bi ni ngi ko ñàkkee sax ñàkk jox Thier sa adversaire lu waral loolu Thier. waaw ah, loolu bi ngay àndal lan la. waa loolu average jeunesse rek yàgg na si làmbu waaw ak ak waaw te ba ni ni ni ni nii noonu la démé malé mon mais séga est que njuumte daal ay xalé lañ. sa xamal lu la ñàkkaloo sa combat yaag boy boy bisaw waaw boy bisaw ñaka respecté rek ak bañ ka jox tir ko moom gëmoon naa ne ba ba nii may waxé yow ni waaw musuma mëna daan ci aduna sétan séti won naa ko fan yele mu ne combat yi mbeure yépp combat yi mbeure bëre ceer na ci combat bu gëna metti ci combat bo waaw combat bo dara ko métti ndax problème boobu dafa am nu mu demee si man ak moom. moom leeroon na ko bu waaw mooy loolu la yàlla def diggante woon wala non amul ranking dañoo bokk ay ay mbokki Baay Faal ah. ñoo xamante ni seen koñ la ñuy jógee di ñëw fi ñuy liggéey combat bu dafa ne ah, dafa nekkoon bu ñu soxla woon daal man ak moom yëpp ndax dafa amoon mu demee si biir daal ci suuf ñu gis combat mu métti lool combat bi métti ba teer ak bis bi ngeen doon bëri Ah. di combat boo xam ne bis bi ñëpp doon bàyyi xel la hmm. nga ñëw war a jox cër li ngay bëree parce jotul cër nga changé sa comportement li ngay bëree ci làmb parce mbër dañu mbër il faut ngeen joxante cër waaw jot na jot nañu changé ko ndax xam nga rek doon xale tamit ñu bari toog sa ginnaaw boo jugee ñëpp jug xam nga jot na booy dem nga def lu wóor li xam lu nga xamante ni doy na ñi nga àndal waaw lu ñuy may naam te incha rabbi liggéey nañ si loolu lépp ci kàttanu yàlla. nga jóge fa amaat Saba. Mm-hmm. waaw Saba tamit comme li ñu comme li ñu dal fee rek moo ñu dal fii ndax Saba ñun ñun ñun ñun gëmoon nañ ni bu fekkoon ci bëre rek rek rek rek rek. combat bu métti ngeen bëre. Saba doom daan ndax moom bëri na ba mujjee découragé si biir làmb ji. làmb ji yàgg ba mu la top 5. waaw bëri nañ ba mujj ba mujjee découragé stade bi yëpp jug mais tamit xelu xale bu la jaafee man pour man kii mënatuma yëngal mënatuma daan. waaw ma bàyyeeku sigi waaw mu waaw mu teg kele moo loolu mais incha allahu rabbi fa la yem bu neexee yàlla suñu borom. ngay jëm sa cinquième combat. waaw ñu war a bëri noiro. noo ko waajee. non noiro ci kàttanu suñu borom day gën a yàgg gën a metti si moom rek maa ngi dégg tamit muy wax ay yeneen taraak lu ne mi ngi koy wax. noiro bu Doudou Bakar Sarr. bu la maa ngi dégg muy wax yeneen gars yi gars yi si ginnaawam ku nekk ñu ngi wax. mais yàlla baax na ñun ay xale lañ rek. la de. déggoo li ma la bu dee bëre la rek may kaamil bi. waaw mooy première aaya bi si kaamil ku ñu tariwul doo jàll. mais mais ñaari défaite yi nga amagum si làmb ban analyse nga ci am ban jàngat nga ci def boo xamante ni tey moom nga ciy tënk sóoraale ci sa kanam ndaxte tey léeg am na ñoo xamante ni dañuy ñëw euh, cër bi ñu war a jox seen adversaire dëgg-dëgg duñ ko ko jox mu yóbbee leen ñu jëlee ci défaite fekk sax ñoo mën ki ñuy taseel donc yow sa ñaari yi nga am lan nga si jàng. waaw xamal nit tamit euh, dina la daan fekk nga mën ko. ñaari défi tam luñ ci jàngat waaw ñun nag ay doomu aadama lañ waaw mais asaka la waaw xam bañ doonee bañ débuté ba tey yàgg na buñ doonee booyu ndaw amay sept ans lañ commencé bëre di bëri tournoi di bëri lépp kon buñ demee ba dugg si arène am ci deux défaites bañ juddoo ba tey dañ koy sant yàlla quoi xam ne lu waroon am la. xam lu waroon am la. Hmm. tey dëgg nga fekk ay mbër di dem entraîner ñoom nan la koy dundee ak waa koñ nan lañ dundee loolu ba nga amee sa ñaari defet yi gisoo ku la contact dana la ah Thier jotul na nga ñëw sa koñ ko parce que dañ écrit bi nga comme ko sama doyen waxee seet écrit bi raar na ñu ni écrit Bathie Sera ñu gis mbër moo xam mi ci arène bi di laayante ñu toj comme kon écrit ñu koy sa dimanche ñu am bu sorti boo xam ne na foofu day raar ñu koy gis allah waaw koñ moom biñ bëree ba daan même buñ daanoo tamit woo nañu wax nañu ñun mais bu jotee rek dana yomb incha allahu rek ndax am nañu ay grand frère yoo xamante ni génnoon nañ te instant ni ñëwaat nañ waaw kon ñun ñun ay ndaw lañ rek mooy li ma la wax sànq ñun fu ñu jaarloo fa la ñuy jaar su jotee ñu ñëw fii rek si kàttanu yàlla fii la ñuy ñëw incha allah. nga gis laamu ji tey nga nekk ci laamu ji gis ni laamu ji doxee ci wàllu CNG wàllu mbëri dagg bi ñu leen dagg ak tay ñi teg seen kaw tey loolu nu ko dundee ak CNG bi nii mën na jar na mu nekk fi ba tey wala ñu changé ko non CNG li ñëpp wax mooy dëgg waaw li ñëpp wax mooy dëgg ñun suñu mujjee dugg si làmb parce que lañ bokk mais kon ñun ñi ngi dégg suñu grand frère ñu naan na fi CNG bi jugee waaw kon tamit ñun dañuy ñëw ànd si loolu waaw ndax xam na loo xamante ni dafa métti si mbër surtout ñun mbër yi nii ndaw yi nii dafa métti trop bilaay minute boo ko taree da ngay wayeri da ak yeneen business yoo xamante ni mu ngi si biir laamu kenn mënu ko wax waaw kon ñi si kaw kon buñ demee ba ni CNG nañ fi jógee ñun dañuy ñëw rek ànd si loolu ñu jóge fi voilà dimanche bii nii dañu dégg ki nga xamante ni mooy Matar Ba di ministre des sports mu wax ni ki nga xamante ni mooy Aliou Sarr xam nga contrat am daanaka jeex na ba noppi mais bañ ko laajee ni ko Aliou Sarr ndax da ngeen di yokkaat ñaari at ci mandat moom daanaka nanguwut a tontu ci question te li tax nangu ci tontu mën nañ see bi Euh, pratiquement dafa bëgg Aliou Sarr daal di fiy toogaat parce que dem na sax ba ma ni kii di Aliou Sarr war na war a mën a nekkaat ki nga xamante ni nii sax day jiite sax nga xamante ni mooy wàllu tàggat yaram ci Sénégal bi ci Sénégal wër nga këpp kon est-ce que tamit jàppoo leen ni ki nga xamante ni mooy Aliou Sarr ministre yooyu ñoo koy tax ñoom waa CNG a am kàttan ñu bëgg a def ci mbër yi rek ñu nga tamit ministre yooyu suñ bëggoon euh, Aliou Sarr jógee fi dafay jógee ndax lépp ñoom i neen la mais ñoom bëriwul ñi bëri ñoom ñoo yëg li CNG di def mais man dama man bëgg a xam da ngeen yëg yéen booy ñu CNG mbëri ndaw yi seen dañuy kaas lu bari ci seen te yéen da ngeen am na ku leen teewal ci CNG pour wax ak yéen yéen mbëri yëpp am na ku leen jiite koo xam ne tey mën ngeen koo jooytu seen problème mu leen taxaw ne CNG mais mais problème bi foofu mooy que turu jiite moo fa am mais mhm. jiite gi dafa am ñoo xamante ni ñooñu la ñu jiite maanaam tey lu may wax toujours rek maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee mbëri ndaw yi surtout ñoom dafa waroon a jaar ñoom ñu booloo nekk benn parce que tey boo nee mbër yi am nañ collectif bi Gris Bordeaux moo ko jiite wala Khadim Gadiaga ba ne mais ñooñu dafa mel ni am ñoo xamante ne ñooñu la ñuy représenté dafa mel ni daal ñooñu teewaluñ ñëpp mais yow itam est-ce que euh, bokk nañ gisin ci wàllu woowu waaw xam nga tamit euh, Sénégal dafa am njiit lépp loo gis ci àdduna dafa am njiit làmb tamit dafa am njiit si làmb ji ak CNG ñëpp ñoom njiit waaw ñun suñu njiit si làmb moom li mu bëgg mooy Alioune Sarr jógee fi ñoom loolu lañuy ñuy sàkku chaque jour waaw te ñun moom fu njiit jaar rek fa la ñuy bëgg a jaar loolu la mais xam bu fekkee da nga ni euh, ministre des sports bi bëggul kii jógee fi tamit day metti ñun buñ ko fi bëggee jëlee day metti mais mais yéen mbër yi xam nga tey làmb mënul am ah, maanaam ñu tëgg làmbu daal di ni Modou Lo Balla Gaye ñooy bëri ñoom ñaar kese ñu ñëw bëri fu mu jaar dina am ay yeneen tombaa yu ci am léegi euh, dinañu gis léeg-léeg ñu imposé yenn mbër yi ni leen par exemple dañ leen jox bloc ngeen war ko dem jaay njëg yeneen yu ni mel ndax jotul yéen itam yu mel noonu yéen tamit ngeen commencé di ko bañ waaw loolu bari na si làmb ji ci su rawatina suñu génération am na ñoo xamante ni bëgg bëri mooy tax ñuy def loolu ndax dañuy entraîné chaque jour di daj lu métti di dem di ñëw xama xama seen waa koñ di waaj di waaj tamit gars duñu ñëw am na ñoo xamal ne ni sax mooy loolu billaay dañuy daj lu métti métti métti dañuy dem kër est-ce loolu yoon la comme mbër yi jël seen xaalis dem ci promoteur naan ko dëggal ma ma jëndal la ay billets est-ce que loolu yoon la parce que yow yow yow miy nekk ci arène bi di xeex di bëri ba pare bëgg a jëlaat sa xaalis dem ci promoteur ne ko force danga may pour ma jënd billet nga doog maa tëggal loolu est ce que jaar na yéen bëri yéen ko nangu su ngeen taxaw yéen ñëpp maa ngi doon benn est ce que loolu promoteur dina ko ñemee de. non mais xam nga fii Sénégal fii ñun dañuy mànkoo bañ lii mais da ngay gis kenn koo xamante ni day yónnee ko ci def ko kon moom yàlla dogal na mosuma ko def si àdduna. mosulaa dal. non mosuma dal mais damay wax ñi ma àndal ñëpp. ne leen loolu su ma naree dal bàyyi bëri mu wax gënal ndax mënoo ñëw yëkkati benn deux cent mille joxoo promoteur wala manager mu joxaat lay bolok ticket nga bëgg a jaay xam nga bëgg a wuti say mystique bopp bëgg a def say regroupement bëgg li jënd say carte boo demee ñu dagg la président dañuy dagg mër ba téye licence am waaw ci booy bu ndaw bu nga xamante loolu bu ko dajaloon am fu mu ko taf dina am lu mu koy dindi dagg mbër ba teel licence non bari na si làmb ji yow làmb ji li si nekk yëpp mooy loolu pour nga fay ñu doog laa delloo sa licence Serigne Fall loolu dégg naa daloon na Bou Siteu bëre ñu koy dagg ba waaw ba mu amee waa CNG xaalis ñu téye licence am ah. ak yenn yoo xamante ni tamit kenn mënu ko wax yenn tolof tolof CNG du ko taxaw waaw kon dagg boobu ban njëriñ la non dagg CNG dafa ma yéem kay ndax xama tamit dem si yàlla si Jules Baldé Junior di ko ñaanal yàlla suñu borom na ko yàlla xar aljana dama dégg benn vidéo mu ne tawatoon na ba dem si kii. clinique clinique gu Aliou Sall bi ko ndax li mu doon fayeeku ñeneen ñi la ko kon làmb amuñu loo xamante ni ñun ñu ngi ciy gis suñ bopp si làmb xam nga tamit nit boo nekkee si dara nga war a gis sa bopp boo nekkee si dara nga war a xam ni kii lii si laa nekk ñëpp xam ko tey mbër mu ci feebar dem yaay fay sa bopp. mais ñu ni assurance bi ngeen di dagg yéen ci làmb ji la yam comme tey mbër ñu dóor ko ci làmb ji mu gaañu dagg ardo boobu ngeen jëm loolu ci assurance bi la bokk bu weesoo loolu nga génn ci làmb ji leneen dal la CNG amul droit kii loolu est-ce que rafetul sax dégg naa ñu ne même booy ñëw si làmb ji gaañ ci yoon bi sax bokkul ci assurance bi. assurance bi fekk duggoo ci biir géew bi boo duggee ci biir géew bi. loolu noonu du assurance ndax tamit même bu fekkee assurance amu fa ngay bëri nit gaañu. di nga taxaw faju n'est-ce pas di nga taxaw faju ñëw door a yeggalawaat kon assurance boobu amul sens mais tamit yenn mbër yi dañoo xamul topp assurance mooy ay kayit la ay kayit la waaw comme ni yeneen gars yi amee kayit di ko lijjanti mbër dañ koy gaay mu topp ay kayitam topp ay kayitam mais Garga Mbossé maa dégg mu ne xam am na benn combat boo xamante ne dafa topp assurance ba mujj dafa ko mujjee bàyyi. combat waaw te ñoom ñoo ñu ëpp branloo kon ñu bu ñu buñ bu buñ ñëwee dañuy xaar. mais yéen a bokk li ngeen di dagg ci licence rek. déggoo li ma la wax ñun ñoo gën a métti combat booy ndaw yi seen làmb ni ngay gisee ko bëre gisee ko xeex gisee ko bëre doo ko gis si bëre mag yi. yi dañuy ñëw nu gisee làmb rek loolu mais ñun dañuy ñëw teg dee ndax da ngay li ngay bàyyi sa koñ boo ñëwee doo mën a nooyal daal waaw il faut mu am lu mu demee. dëgg ci Farba combat boo amee combat est-ce jàppale bi demee na noonu comme yow yaa ngi fi ak yeneen i mbir nga am combat est-ce jàppale bi demee na noonu dëgg-dëgg ndax Farba moom ko ne xam na ni dëkk bu mag la ñëpp ko xam. waaw Farba moom dëkk bu tamit nuy waaye suñu gànnaaw ci rajo moom da si jàpp bu baax a baax a baax a baax dëgg yàlla ak waa Poste Thiaroye ku si mel ne Lamine Gueye Fallou ak Bada bu Medina ak Sam Mag jëf jël xam ak Karbala. moom ma seen bu ñoom dañ ciy jàpp baax baax baax dama dama mujjee sax yërëm ak boo yi nii nii ñooy teg seen fukk fukk seen juróom-juróom teg lépp mais amul benn amul benn autorité autorité boo xamante ni mës na yëkkati cinquante mille jox ñu ko ñun ñooy demee rek waaw suñu bopp ak suñu majaal. est-ce que di ngeen nite bu ñoom bu ñu leen soxlaa yéen it ngeen xam bu baax nan ngeen war a def. waaw ndax xam nañu parce que dañuy gis yéen bu élection yi ñëwee dañ leen utiliser yéen mbëri ndax dañ naan yéen a ànd ak mbooloo a xam nit duñ leen jàppale est-ce que jotul yéen tamit ngeen am xel boobu noonu ñoom soxlaa ngeen ah, ma am na si ñoo xamante ni boo amee combat boo fa demee ni dañu tëj seen buntu wala nga seet mi si biir ñu ne néew léegi yow élection jot ñu bëgg la ñëw xëcc man moom wax yàlla non mosuma dem daan ak kenn ay élection élection mais tamit euh, ku la sëggal nga ñun grand Thierno Diop lañ gis dëgg yàlla pour l'instant man moom laa gis moom ay jàppale du keneen waaw di ñaanal yàlla tamit mu waaw li mu bëgg yàlla may woo. voilà laata ñu fàttali rek yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci info 15 ñu ngi ak yéen ci seen émission li ci làmb bi ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy Thiel bu Gouye Gui li nga xamante ni moom la wax wax ci waa CNG loolu moom mbir la boo xamante ni ku nekk mu ngi koy coow ki nga xamante ni mooy Yaxya Diop Yékini moom mi nga xamante ni nekkoon na ci seen biir jékki-jékki woon sax daal di génn tey jii ki nga xamante ni mooy Matar Ba jot nañ ko laaj lu ni mel moom sax ni mu waxee nee na daal euh, dàqul génn bi nga xamante ni Yékini génn na ko mais façon bi mu amee moom moo ko métti kon nag muy yoo xamante rek euh, waa CNG muy mbir yoo xamante ni ñoom dina jaadu ñoom seen jëmmu bopp ñu xoolaat seen bopp ndaxte kër buy am ay jafe-jafe rek tout le temps njiit li war na génn taxaw leeral yu bëree mais toujours dañuy gis jafe-jafe yi di wëy di am te leeral boo xamante ni dafay faral di am euh, beneen point bi nga xamante ni bëggoon nañ ci ñëw mooy làmb làmb jamono ji ni ci sa gis-gis ndax jàppoo ni fa mu jëm du luy ne manam dina doon lo xamanteni luy nakari lay doon ëllëgu lamb noo ko gisé ëllëgu lamb day met torop si mbeur mo xamanteni jappul fenn li rek war na yee mbër yu bari muy mbass mi ni xamal tamit Sénégal fi ngay fogg sax jour di taalal loxo di nga fa ñew benn jour ñu teg seen buntu waaye ñun ay ndaw lañ ay jeunes lañ xam di waxale sama yeneen morom mbeur yépp nañ ñëpp di entraîné ni mu ko waree mais nañuy liggéey ndax liggéey mooy lépp mm. man tey damay liggéey man pièce laay def waaw man bu laaba ji suuxee damay liggéey bu laaba ji suuxiwul tamit damay liggéey mais heure bu entraînement jotee danaa wax ak ki ma nekkal mu ne ma demal entraînement moom bañ na ko sax ba dani ma bu la neex xëy si heure bu la neex moom comprendre na ma waaw liggéey lu bari dañuy dem nan lañuy mujjee nekk ay videur wala dem di garra ji wala ñuy dugg si yoo xamante ni tamit day metti si ñoom daal waaw te dafa am bari ñoo xamante ni dañuy boot sa ginnaaw waaw te xam nga Sénégal fii moom boo amee benn combat ñu yaakaar ne yow waaw yaa ngi affaire yi te fekk demul noonu bëggoon nañu xam tamit ndax Thier pare na pour ci benn saison mu teg la ci ay làmb yu bëri pare na si benn mois mu teg la si quat combats benn mois. ay ndaw lañ parce que sëñ Fall ay ndaw lañ dañuy génn si àll bu bëri dañuy dem bëri tay fii bëri fii bëri fa te dañuy contact li ñuy contact par jour mooy loolu day metti. voilà comme ni nga ko waxee rek Pierre moom xale la. Hmm. ci làmb di bay waaram comme ni ko ay morom waxee parce que làmb dafa metti boo nekkee xale nekk ci koñ di bëri. jàppale bi demeewul noonu day yéeme day doy waar waaw kon booy gars yi nañuy gëstu booy ndaw yi di leen génne ku ci mel ni promoteur yi gis nañ Gaston Mbengue ñëwaat na. ndax sauvé na lamb boo xoolee tey lamb ji demoon na foo xam ne kenn xalaatu woon combat yi magee dina taxaw VIP yi dinañ bëre. waaw mu taxawal bu mel ni Gris ak Balla Gaye. xam nga loolu rek. lamb la na lamb ji. waaw ñëwaat na tey Eumeu Sène kii tamit ñëwaat na. Bombardier Tapha Tine Boy Niang taxaw na dégg naa taxaw na. waaw Leewtoo moo ko taxaw Jalis. Mhm. muy lamb yoo xam ne combat yooyu noonu day indiwaat nit ñi ci lamb ji. ak Coense Diour Motor. Coense Diour Motor Baba Diaw xam làmb jooyu noonu làmb yooyu dafa baax ñuy taxaw pour day indiwaat nit ñi biir làmb ji. gisee combat yooyu taxaw. waaw ñun moom waaw suñu grand garçon suñu père sax laay wax lim doon wax naan damay génn si làmb ji du suñu arrangement ndax ñun si làmb yooyu noonu lañ mën a indiwaatee ñëw pour ñuy suivre làmb waaw te ñun. waaw Mbacke di siyaar suñ kilifa gi suñ sëñ bi mooy sëñ waaw suñ Matar waaw comme noonu tamit làmb ji Gaston lim ñu def nii lu rëy la ndax dina am ñoo xamante ne delloo si waat seen xel si làmb ndax làmb ji da ngay dem feneen sax lan la ñuy wax Mawlo Balla Gaye ñooy làmb ji léegi su Mawlo Balla Gaye bàyyee làmb day gën a làmb ah, waaw kon il faut que ñu am ñoo xamante ni dañuy nekk si si tànki ñaar ñooñu Mawlo Balla Gaye newuñu fi woon ñeneen ñoo fi nekkoon léegi ñooñu dañoo pousse Modou Lo baala Gaye ñëw voilà léegi ñun war nañ def le tout pour liggéey bu fi ñëwee poussé ñun ñooy ñëw taxaw par force ñooy appliqué loolu ñun ñooy appliqué loolu ñun tamit bu ñu demee ba jógee fi ñeneen ñëw si ginnaaw waaw ndax affaire yi moom nekkul ñi ñoo ko moom ñii dañuy ñëw li rek affaire bi jeexee foofu làmb yàgg na suñu jamonoy maam la am si moom ndeysaan loolu damay damay neex damay rafetlu loolu parce que fii laa juddoo fii laa fii la gante te booy bi tamit fii la juddoo si sama kanam kon amaan sama laaj ci solom ak yarama tekkam dama siy sawar kon loolu lu ma neex la te man lii bett na ma lool te programme ma ko lool. ndeysaan dëgg ak Cheikh Ibrahima waaye nag dama lay xamal leen li nga ma la si hmm. wax ci moom. waaw tout tànk bi moom vraiment am na cër am na respect vraiment fekk waaw jox na cër ay magam même soko ko magee une semaine sax wala benn jour sax dana jox sa wàccuwaay ngir sëñ Tuubaa Cheikh Ibra waaw barke Cheikh Ibra kon li ma laaj ci moom tamit amaat tamit may neex lool pour wax si moom waaw yàgg na kaa reefe xëy na tay la ko yàlla dogal moom war na mën a seede si moom barke Cheikh Ibra su ma dënoon lu ñaaw tamit xëy na ma seek moom sax ay toogaay ñu ñu koy seedal lu baax damay romb dem sama yoon parce que man su dee benn fan sax maa am naa leen lu ma tal waaye avant tamit lu tax ma gis ko nii nii tamit xam nga toog ba perte sama temps xëy na moom moo ko joob ak man moo ko dund ak man daal waaye su ko dund woon ak man avant tamit aw ma temps am. Thier nekk xale nekk ci làmb ji di bëri. est-ce que Thier ko waree noonu ni ko moromee defee. waaw loolu moom tamit amaana tamit sama bopp laa koy xoolee rek comme na nu ma doon téye rek. waaw képp ku bëgg bëgg ko ñëwal jël ma xam nga amaat dama ko appliqué sama métier quoi parce que waaw loolu loolu loolu loolu tamit moom war foofu laa koy jugé quoi moom tamit mi entraîné ak entraîné wul loolu tamit métier am la quoi te métier am du tricher waaw làmb moom du kenn du tricher soo entraîné wul. boo demee bis boo yàlla dogalee tamit ñu boole la ak sa morom. sa morom di entraîné te entraîné woo bisu la yàlla boole ak moom résultat day feeñ waaw moom la concerné waaye sama métier man moom mosuma see fekk dama yedd kon moom vraiment su entraîné xëy na loolu métier am loolu laaj si entraîné wul métier am loolu laaj kon amaat entraîné moo ko waral. jaajëf Moussa ñu ngi lay bi waaw mbër moom ñun li ñu mën a wax bari na quoi parce que comme ni ko Moussa wax rek ñun ñoo juddandoo ñoo yarandoo ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp ñoo jàngandoo daara si daara fa moom mbër moom li ñu mën a wax si moom bari na trop mbër am na fula am na fayda bëgg na làmb ji mais nag fii mbëru baan yi dafa xaw a métti quoi surtout ñun fi ñu jiite comme ñun fii problème jàppalee lañ gën a am quoi problème jàppale te mbër mu ndaw dafa laaj jàppale ko dëgg la nga gox bi mel ni Farba est-ce que problème jàppale war waaw man Farba du ma fi tiit du ma fi ragal pour wax fi dara quoi man sama yaay fi la juddoo sama papa fi la juddoo man d'origine Farba nee naa kon lu ma fi wax rek fi la am quoi Farba ñoom gëmuñu mbër quoi kuy daan lañ xam. gëmuñu mbër kuy daan lañ wax la ko waaw comme comme yeneen saa yi ay jaamu gën ay Pikine ñoom nga daanoo nga bañ a daanoo. yëpp dañuy ànd ak mais fii ñoom xamuñu mbër kuy daan lañ xam dama koy wax moom mii dama koy wax alliance bureau te dama leen koy wax chaque jour ñu koy dégg waaw chaque jour dama leen koy wax comme nag ñoom ñoo mën a jàllale seen bopp quoi ñoo mën a jëkkati seen bopp comme que xam nañ ni kon bi kuy daan la xam man bu ma demee làmb ji damay def fulla def fayda waaw def fulla ak fayda def lépp mbër nag dëgg la ay jamono ñëpp xam nañ dafa mun a bëre mais ci biir làmb ji à chaque fois day fo chaque jour. lu waral loolu bu ñëwee du jox cër mbër mi. waaw mooy li ma la wax rek affaire da xale la woon te jàpp naa ne loolu jeex na parce que ñu ngi waxtaan ak moom guddeeg bëccëg suba ngoon yàlla mi ngi dimbali te boo ko te pour nit ñi xam ko dëgg làmb ji ñu doon ñu doon waajal bu des une semaine bu ñu demoon ñu xam ne pare nañ quoi mbër changé na changé na si bépp anam quoi laata nañ ñaan yàlla rek waaw arène bi indiwaat ñu dem ñu dem wala ñu dem. ñu waajal combat ba léegi nii ñu ngi si nekk. surtout ma ma fi non duñ bàyyi mu sedd yow laat xam nga ma sax man ma bàyyi mu sedd. vraiment ma fi yaa bes tax ma fi ji bu mbër ceer guy ji. ji mooy maanaam. ji mooy xale xale osé bëgg boppam waaw yaa gën a xam te incha allah. loolu ma fi yaa ji waaw ma nii sa ginnaaw te incha allah lamb yi di nga ko gis les ji derrière guy gi osé aisé. dafa leer. José di santaal suñ benn grand Pa Mbeng ñu naan ko Mbeng Mboro borom 6 millions 500 yi waaw borom Europe oh, la France borom Palma borom Espagne waaw moom suñ jandal grand la moom sax combat mu génn 1 million 500 teg ko si table bi. 1 million 500. barke sëñ Baba 4 la. bilaay walaay taala combat bii di ñëw. lan da doon ndax dafa waroon a fekkee bi. mi ngi fon fan yëpp mais waaw li yalla dogal moy lolou dugal na mais né lamb djuma ji bu ñu ko jàppaatee day wacc ci terrain bi ci carte yalla Daniel Bidel mo moko yor mbeng Mboro borom 6 millions 500 yi voilà laat mu mel euh, li ñu cërale ci waxtu dab nañu rek euh, dañuy ak mu di joxe kàddu bu mujj. waaw Thierre sa kàddu bu suñu kàddu bu mujj di sant yàlla suñu borom rek waaw julli si yonente bi di sant Baay Faal bi toog jii nii xam nga ñoom dañuy sonn ci samay làmb ku si mel ni Papa ay Pène Ndiaye xalil xam nga Modou Badiane am di am di moom moo loolu moom suma doom la suma rakk la suma lébu la barke yàlla amuñu fayam xale la mais tamit bu ñu bëree lu nekk la si daj barke Sëñ Faalu maanaam di si xolam xam nañ ni bu doon noonu la doole ji tool ak jëmm ji kon ñu romb nañ fii waaw di sant Baay Faal yëpp ka postare bawo kenn kenn kenn bo limé ki kenn tax limo mais di santu mor sum ben gan ñoy andi liggéey ñoy andi wacc ak bara borom waaw grand dakar ak karbala abou omar sen ak jëf sam mag la mais mom tamit moy lol dal waaw di santu way gi di bacc seras ñepp di wax mbeur noiro mi paré ñoy bu yemal mu gëna paré lu mu paré doyul hmm. lu mu pare doyul lu gën a pare bu xam ne gone yi dañuy liggéey de caaxaanuñ te dafa am fu ñu jógee am fu ñu jëm waaw. voilà comme ni mu ko waxee rek waaw Thier moom lañ dalal si woon di champion nekk équipe à Thierass bay waaram def quatre combats deux victoires deux défaites di dugg si cinquième combat waaw di wax ni moom lañ seeti woon fii si Djolof Farba. di nuyu ñëpp di nuyu gars yi ñuy topp si météo 15 bi ñëpp ñu ngi leen di siyaat di leen ñaanal di leen ñaakuteer ñoom jukku waaye yëpp ñëpp ñuy topp géewul làmb ji ngoonal làmb ñëpp képp ku ñuy topp si émission bi rek ñu lay nuyu di la siyaat di siyaat sama benn xarit sama doomu ndey muy Aliou di siyaar bu baax a baax di nekk si Kapa Mbao maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko màggal di ko ñaanal jàmm jaa ngeen jëf. voilà dañ leen di jaajëfal rek yéen ñi nga xamante ni yéen a saxoo ak a saxoo di ñu topp ci info 15 bu ñu def lu dul rek di leen jox dig daje beneen talaata ak beneen invité ci seen chaîne info 15 point com. nañu dem nañu dem si info 15. nañu dem nañu dem si info 15. di nga am di nga xam information fii ak fii.